di leen jaajëfalaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ni yéen ñuy topp à travers nos différentes plateformes moo xam People 221 Dakar Live Allo Sénégal mbaa Dakar Star di jaajëfalaat yéen ñi nga xam ni saa su ne yéen a abonné di nu topp à travers toutes nos différentes plateformes tey nag danoo seet si kilifa tey danoo seet si Serigne Djibril Niang le bu des grands hommes xam naa kenn dootu ko présenté dañ koy bàyyi mu nuyoo Serigne bi ñu ngi leen nuyu la bàyyi nga saafanteeg so bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq seydina muhammad salallahu alayhi wa bokk jullit yi yéen ñi safoo chaîne yi nii di ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla na yàlla dolli sutura yàlla dolli sàmm dolli aar te lépp loo xam ne wax nañ ko fi comme xam-xam yàlla mi barkeel yàlla yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. macha allah jotaay bi nag xam naa duma ci wéet benn yoon ndax maa ngi ci feggoog sama concert aji macha allah ak guy gi ak euh, comme ni ngeen ko xamee tey nag mu nekk jotaayu xam-xam xam-xam bëgg waxtaane njariñ lañu bëgg waxtaane comme ni ko mu ne balaa ñuy tàmbali dañ lay laaj lu waral gëj génn gi mu mel na nit ñi namoon nan la voyage la wala euh, la jàppoon la wala lan moo waral gëj génn gi waaw fa tabaarakallaahu ñun ay jaamu yàlla lañu ay doomi daara lañu ay jàngalekat lañu bu ñu demee ba réew mi jaxasoo ñi xam ak ñi xamul xuus njàpp ci internet bi ku xam te am personnalité war a mën a toog boo xoolee internet bi di ko seetaan ay nit ñoo xam ne ñoo ngi wutawoo doo ay sëriñ lañu te wallaahi rus nga sax yow tuddoo sëriñ ngir ñoom seen xeetu jëfu ñaawteef bu dee feni te dañoo jàng ci laxdar yi wa yaxrumu dana araam alay ci mu kalaf alkazibu fen fen mooy bàkkaar bi gën a rëy fëgg dënn kenn ku ne taxaw naan man a man a man a man a loolu ku am jomm am looy rus am looy seexlu nga war a mën a toog fa tabaarakallaahu ba ñoom seen show jeex ndax nag wax dëgg yàlla ay wutukatu bës nga leen di jàppe ay revue de kese nga leen di jàppee ndax man actualité su ma ko bëggee xam sax ñoom lay seetaan. ñan mooy sama mbokku sëriñ si te sëriñ xaala xaala rasulu sëriñ bu génnee ci yàlla nee na yonent bi nee na ñuy ñu doyati sëriñ. bu dee yow li nga xam ci aaya alquran alif lam mim zalika alkitab laa rayba fii huddan lil muttaqin alladina yuminuuna bil ghaybi ba minal jinnati wa naas sëriñ da kaa wax ci giir da kaa mën a wax ci dundam wàccee aaya alquran yi yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñaata xadis la imaam ñaata la bind see seydi xaaji ñaata la bind mawlaana ñaata la bind bu njëkk li leen doon daa dooyee sëriñ mooy bis bu génnee boo ko xoolee danaan la yàlla nee na yonent bi nee na waaye sëriñ boo xam ne boo ko xoolee dangay mel ni kuy setaan saa neex sëriñ boo xam ne boo ko xoolee sa xel ci li muy njëkk dem mooy ab théâtre kat boo xam ne boo ko xoolee sa ci li muy njëkk dem ab fookat waa lii bu jaxasoo nii ku am ful la am fayda toog sa kër jàpp sa ñaambur waaye est-ce que dañoo war a toog kese bu ñu bàyyee ñi nga xam ne xamuñu dara xuus maa ñàpp nekk ci biir internet bi di wax day dem ba dañ naan Sénégal amul sëriñ senegal est-ce que li fi nekk nii fa tabaarakallaahu moom la fi mag ñi wàcc muy wax lu la neex def lu la neex ku la seetaan reetaan ba dem waaye damay faral di wax naan képp koo xam ne am nga xam-xam te am nga loo xam jot na nga génn est-ce que xam nga yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam bu fi fekkoon internet bi daawaam yépp ci internet lay nekk. da ngay daganal internet wala. internet dafa xaraam soo seetaan Serigne Mountakha ci internet. Ah, musoo seetaan Serigne Mbaye Sy Mansour ci internet ñaata nit ñoo mokkal alquran ci internet. li ngay wax ci internet mooy xaram waaye internet xaraamul rasulullahi salallahu alayhi wa sallam bu toogoon alquran wàcc. yaa ayyuha alladina amanu iza nudiya li salaati min yowmi jumaa tey la bisu àjjuma aaya alquran wàcc di di wax ci jullig jumaa rasulullaay woo internet yëpp ni leen kaale defal ma ko direct tiktok yëpp ñëw ci minute bi adduna bi yëpp mënoon na ci jotandoo waaye alquran daraan wàcc ñu takkal saxaaba fa tabaarakallahu gëléem mu dox dox yi weer pour jàngal ko dëkk yonent bi bu amoon bu amoon internet gi chaque guddi mu def direct jàngale ndax jàngale moo tax a jug internet jàngale moo tax a jóg fa tabaarakallaahu ñaata nit ñoo du fekkewul jamono saa mbay fu ñu xamee sëriñ saa mbay du ci internet waa ñi war a génn ci internet bi war a mën a jàngal nit ñi waaye nekk ci fen nekk ci théâtre nekk ci cinéma dangay seetaan sëriñ sax mu toog ñi di def émission nga xam ni ñi luñ préparé la waa ji daan ko su ma waxee ba ci kanam nga jooy sëriñ lu muy jooy. yow fajal aaju nañ lañ la wax looy jooy wala man damay saaga jinne saaga jinne ban njëriñ la am damay saaga jinne mi ngi mel ne nga toog naan damay saaga nit kan nga saagagu damay saaga nit mooy lan te jinne du dara kon sunu ñàkk génne gi du dara mooy dem na nañu ba séexlu fa tabaarakallaahu li nga xam ne moom la nit ñi di mbubboo naan sëriñ la waaye dem nañu ba xam ne nag wax dëgg yàlla toog waruñu jamono ji ku xam benn araf farata ci yow nga génn wax ngir yee ummat naa Muhammad ndax nit ñi bëgg nañu baax waaye réer nañu. macha allah nit ñi bëgg nañu baax waaye mu mel na loolu parenthèse la woon rek introduction la waaye waxtaan wi dëgg-dëgg ndax it euh, mu mel na sëriñ li mu baaxoo woon ci nin ko miine mooy am aajo dem ni ko ñaanal ma tey euh, est-ce que euh, ñaan lan mooy ñaan ci boppam ak est-ce que ñaan amati na ndax it sëriñ léegi la sëriñ gën a bari. léegi la aajo yi gën a bari dëgg-dëgg ñun ñii rek am na nu aajo ñeneen ñi am nañu aajo te léegi la sëriñ gën a bari est-ce que ñaan amati na nag. fa kuy laajte ba xam ñaan amati damay ragal ni dangaa xamul kan mooy Seydina Muhammad dangaa xamul kan mooy yàlla. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wàcce alquran ci moom ni ko adduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen lu gën a garaaw loolu. wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa'i sa jaami buñ la laajee yàlla bi ñuy jaamu ban yàlla la ne leen yàlla boobu yàlla bu jege la waaye ku ko ñaan mu may la yonent bi sallallahu alayhi wa nag tëj wax ja ni adduaahu ñaan bi ngay laajte nii huwal hibaada nee na ñaan mooy jaamu yàlla waaye est ce que jaamu yàlla moom keroog ba nit ki juddoo ba ba muy dem bàmmeel day soxla ñaan cuun bi nga juddoo liñ njëkk woo sëriñ bi ne la toqantal lan la du ñaan biñ lay tudd dañ laa ñaanal yàlla buñ lay booy génn àdduna julli giñ lay jullee ñaanal yàlla la kon ñaan mënul bàyyi nit ki ñaan day topp nit ki ilaa yawmil haza tey lay ñaan gën a am bari na ku naa la sëriñ amul bu paree sëriñ lay waatee am na ko xam dana la gaw ma sëriñ barki sëriñ Fallou gaw ma sëriñ sëriñ Fallou du sëriñ sëriñ day war a wax nii gaw ma sëriñ si fenkat yi laa gëmul sàcckat yi laa gëmul ñii lekk sama xaalis te ñaanalu ma ñii laa gëmul waaye sëriñ tey la gën a am. est-ce bi yàquwul. waaw métier ñaan de ku ko def métier yàqu na ci yow métier ñaan boo xam ne balaa nga wax da ngay teg Pawlish Mbaye sa wet sëriñ boo xam ne balaa nit ñi di la seetaan fa tabaarakallaahu da ngay teg ab artiste wala ab tiktokkat wala ku nit ñi xam sa wet pour may la buzz dafa am sama benn jigéen fa tabaarakallaahu bi ma nekkee ci tukki mun sëriñ Jibril yéen daa mel ni seen métier yàqal ma ne ko ñi mu defaraloon waaw ku Pawlish Mbaye wax ba ñu xam la Pawlish Mbaye bu ko neexee mën na waxaat ba ñu bala waaye ka nga xam ne ba muy jàng alxuraan polis Mbaye fekkewu ko ba muy jàng alxuraan maamu Pawlish Mbaye fekkewu ko kooku lu Pawlish Mbaye bën ci moom dara ñi ko gëm xamuñu sax Pawlish Mbaye kon métier ñaan yàqu na yàqul loolu fa tabaarakallaahu wax ju yàqu la rek. est-ce ngi fajooti tamit ndax dafa mel ni. xam nga nit ñi nag ñoo ñàkk fayda boo yore aajo. war ngaa xool waaju am na loo xam ne Sénégal rek nga koy gis sëriñ bu toog ci plateau télé di wax émission une heure de temps wala 40 minutes déggoo ko mu wax ay alquran sëriñ sii ngay gis ci internet bi bu doon Maroc rey nañ leen bu yàgg bu doon Algérie rey nañ leen bu yàgg bu doon Égypte rey nañ leen bu yàgg ndax sëriñ xaala laahu xaala rasulu am na koo xam ne day seetaan sëriñ bi di reetaan di seetaan sëriñ bi di reetaan ba këy dem jox ko aajo ni ko ñaanal ma yàlla kooku ab fans la doon ñaan lokkat waaye du ab sëriñ ki nga faa di ko seetaan mu lay reetaanloo ba nga xëy wax ko aajo mu la jox ma 500000 mu ñaan la gisu dara nga ne wër naa ba sonn des fois fa tabaarakallaahu nit ñi ma ñaan ñàkk naa 3 millions ci ñaan. waaye sëñ Jibril man wax dëgg yàlla man 66000 laa la fay rek wala man 50000 laa la fay sama aajo faju man la dangaa ñaan lu sa waaja ku am aajo. fekk baar ci Macky Sall mii nga xam ne président Sénégal dong la nga fekk baar ñi ngi ci mbedd mi nga jox ko sa enveloppe ñu ko joxal ko Macky Sall du ca jot. waaye war ngaa am yaakaar ni boo gisee Farba nga boo ko joxee mu jot yàlla dafa am ay gaayam ku ñaan ku dem yóbbu sa aajo ci gaayu yàlla yi boo ñaanee yàlla fa laaw yàlla daal la may xool yàlla wax la inna alladina yastakbiruuna an ibadaati sa yadxuluuna jahannama daaxirin yéen ñu toog naan du ñaan yàlla war naa ba tas sama ku sa aajo war a dox day dox yàlla yar wërsëgi yàlla nee na ñooñu seen mbir du sotti seen mbir day gàllankoor waaye keroog yow mal xiyaam damay safara non waaye safara bi gën a suufe ci safara yi yàlla bu yàlla tas yaakaar dëgg dëgg rek lay doon alaaji abdu daan wax naan dëgg bu jekkoon ci ndiggu Seydi Xaaji Malik ma dóor ko ci sëriñ Babacar Niass muy sëñ Bay si Niass MC wallaay rafetul ak lum ci mënti jublu rafetul kenn du enregistré sa taalibe in zur dimbalee ak sa mbokk zaliman bu tooñee aw musulman wala ñu tooñ ko sa mbokk bu tooñee danga nga kaa war a jubbanti nan nga ko jubbante wax ko dëgg ni ko yaa tooñ waaye doo ko weer koo weer mu dem bala te sëriñ yaakaar lañ koy doyee ki nga ci ñëpp ni ko yow laa doyloo di waxtaan ak moom ba mën laa wax loo xam ni fa tabaarakallaa mënu kaa wax kenn ndax loolu ragal naa ne xale bu jigéen ni bu dul woon bàyyi mbayam si du ko wax kenn lu tax wóolu lan moo tax yaakaar yàlla li nga déggee rek mooy sëriñ moom fa tabaarakallaahu am na ñu baax am nañu ñu bon. yàlla yàlla dolli sutura. oui tey xam naa bu nu génnaatee ci actualité duggaat ci xam-xam macha allah mu mel na que <coughs> boobaak léegi sëriñ euh, réew mi bare na rab jinne macha allah mu mel na sa mbokk yi comme ni koy waxee ñoom fi mu ne Sénégalais yëpp am jox na leen rab am nañu rab Sénégalais yëpp am nañu jinne rab est-ce que am na ak it rab ak jinne bu nu amee lan mooy wuute gi. fa tabaarakallaahu pour wane la yàlla moo bind rab dafa ne wa maa xalaqtul jinna wal insi illaa liya'buduun man yàlla man maa bind jinne fa tabaarakallaahu ak nit pour ñu jaamu ma mu ne wal jaanu xalax naaw min maariji samumin man maa bind jinne ci safara su tàng su jër qul uhiya ilayya annahu istamaa nafaru min al jinni fa qaalu inna samina qur'ana ajaban yahdi ila rushdi jinne yi ba ñu déggee Seydina Muhammad fa tabaarakallaahu di jàng alquran dañu liñ dégg nii ajaban lu yéeme la waxuñu lii lu neex la de dañu lu yéeme la maanaam jéggi na dayoo ndax alquran dara du moom waaye fa tabaarakallaahu rasulullahi daal di dugg ci diine ji li ngay dégg mooy jinne fa tabaarakallaahu mbindeef yàlla bu am la ndax yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun nee na man maa bind jinne wax naa la ci safara lañ bindee jinne nit ñu bind ko ci ban jinne ak nit lenn mooy seen différence ma wax la ko tey mu leer lépp lu am ci jinne am na ci nit jinne dafa invisible kenn du ko gis nit visible xoolal nit moo mënta gis jinne waaye gaynde day gis jinne te jinne mënta gis gaynde jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kenn du yàlla yàlla mi may jinne di mën a gis nit te nit du gis jinne yàlla moomu moo fexe ba gaynde di gis jinne te jinne du gis gaynde moo tax bari na ñu bari ngay dégg ñu ni sàcc na leen jinne leen sàcc yóbbu leen si àll bi ndax nit bu gisee gaynde ni muy tiitee jinne xam ne lii gaynde la mu mën a ànd ak nit ki daw kon jinne lu am la waaye des fois nga dégg sëriñ boo xam ne danaan jinne ak rab du benn wallaay nga xam ni kooku mu jox ku ko jox alal ni ko ñaanal ma yàlla wallaay lam lekk riba la sëriñ bu xamul ni jinne ak rab ba xam benn la. maanaam. jinne ak rab amul différence jinne mooy tur ci arab rab mooy tur ci olof benn la mi ngi mel ni oto ni mu nekkee tur oto oto oto oto moom olof la wala français <laughs> yàlla koy laaj si oto français la. ñun langaam lang ma langage bi ñu miin naan oto oto moo tax ku wax oto ñu foog ne olof nga wax mais oto france la ndaamaar mooy mooy mooy mooy fa tabaarakallaa mooy oto ci olof waaye rab mooy tur dëgg-dëgg mag ñi nag miin gi ñu ko miin jinne bu baax ñu ni jinne la jinne bu bon ñu wooye ko ni ko rab rab la naa la wax langue bu ne am na lu muy wax jinne soo demee fa laaw ci italien yi jinne ñoo ngi koy wax demoños portugais yi jinne ñoo ngi koy wax démoni boo demee fa tabaarakallaahu ci anglais ji jinne ñoo ngi ko wax the démo boo demee ci ang fa tabaarakallaahu ci français yi jinne ñoo ngi ko wax démo boo demee ci wàllu turki muy waa eh, dëkku turki dëkku turki ñoom seen langue jinne ñoo ngi ko wax iblis la langue bu ne am na lu muy tuddee jinne kon jinne ak nit benn la jinne nag mën a gudd fan waaw jinne ak rab benn la jinne mën a gudd fan loolu waaye fa tabaarakallaahu ku xamul lii lan ngay xam xanaa xamoo jinne dafa am seytaane am rawxaan am xudaam am malaaka am moo tax sëriñ bu xamul toog di ndamoo jinne danga koy yërëm yow mi xam xanaa xamoo li ñuy moo jinne ci gën a tuuti jinne gën a tuuti garaat jinne du dara caméraman yi ku ne mën na am ni jinne jinne du dara luy jinne yàlla fa tabaarakallaahu lim gën a teral doomu aadama la dama lay jinne lu ko ëpp doole lan ko ëpp doole. jinne xuddaam moo ko ëpp doole. xuddaam mooy lan. xuddaam fa tabaarakallaahu mbindeefu sunu borom la boo xam ne leer lay doon. xuddaam ci turu yàlla lay génne da ngay weddi turu yàlla ba turu yàlla bi ñëw loo mën a sant jinne mu bañ boo ko santee xuddaam mu defal la ko xuddaam rawxaan moo ko jë moo ko yilif rawxaan kàttanu leer la. cuun bari na sëriñ su mës a gis rawxaan de am na sëriñ su mënta gis xuddaam sax cuun rawxaan boo ko woowee ba mu ñëw ni ko fajal aajo rawxaan bu déparé mën a ñëw fa tabaarakallaahu bis boo fekkee aajo ba comme ça nga ni ko reyal ma cuun mu ñëw nga naan ko bàyyil cuun du rey cuun yow lay rey raw xaan li tax li tax mu jug ci ndigal lay jugee ndax raw xaan balaa muy jug dana day tàggu malaayka malaayka mooy chef am malaayka yëpp jibril mooy chef am jibril yàllaay seen kon kuy jinne jinne du dara jinne kenn la yilif muy seytaane sëriñ bu toog naan damaa am jinne damaa am nangam doo bëgg du dul fekk fam toog door ba mu dee xam ni kii dara jinne du tus cuun est ce que xam nga aajo bi su ma téyee sama kurus fa tabaarakallaahu yaa razaaxu yaa fataaxu yaa nangam cuun fa tabaaraku daam daal ñëw taxaw loo bëgg ma ni ko loo bëgg ma ni ko diw mi dama bëgg nga faj aajoom day dem wax ko rawxaan bi. bi waaw déedéet xuddaam ah, bi. cuun jinne du dara. jinne ñoo ko bay bës jinne du tus. tus bari na sëriñ boo dégg mu naan damay faj jinne cinéma lay teg déggoo fi benn sëriñ boo xam ne neena na Mbacke Thierno Moule Sow ñoo doon liggéey mooy fay journée soixante-quinze mille. fan la moo tax état Sénégal liggéeyuñu dañoo war a dem jàpp Thierno Moule Sow moomu tëj nit ku taxaw carrément ni ay at Mbacke Thierno Moule Sow ñoo doon vidéo ma daanu daanu mooy fay journée soixante-quinze mille loolu di trafic d'influence mais nañu wax dëgg te yàlla tax lii metti mag ñi ñoo ngi toog seen kër yi borom xam-xam yi ñoo ngi toog seen kër yi am lu leen naqari lu tax mooy ñoo ngi nax umatu Seydina Muhammad am na koo xam ne ndaw soosu moo tax mu gëm cor ne mu la saw am na koo xam ne ndaw soosu moo tax fa tabaarakallaahu mu jël alalam jox ko cor ne mu la saw ñoom ñaar ñëpp la ñu waroon boole tëj. cun dama lay xuusal sax ci jinneeg xudaam aaya euh, euh, fa law turu yàlla boo tee am na xudaam bu ci toog bu dee razaaxu am na xuddaam boo xam ne ci razaaxu rek lay dox bu dee afaaru am na xuddaam boo xam ne ci afaaru rek lay toog fa tabaarakallaahu am na koo xam ni mooy seen kilifa mooy rawxaan moom mooy kàttanu leer su ma bëggee am aajo di ñaan yàlla fa tabaarakallaahu boo mën tëb tëb directement yegg ci Seydina Muhammad ci ñoom ngay jaar. cun ki bari na sëriñ bu ñuy ñaanal sëriñ boo xam ni da nga koy jox sa aajo mu ñaanal la yàlla ba son doo gis lu tax xamul tax daa xamul buntu ba cun ko xamul buntu doo dugg. buntu ñaan dëgg rasulullahi mooy buntu ñaan ba cuun ñun yàlla dañoo bind nii rek pour pour pour décor ñu ñu feesal adduna bi rek ñun waaye ñun intéressé wu yàlla de kenn intéressé yàlla wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi si waa sayyidul mahmudi wa habibu yàlla kenn rek la bind pour boppam waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la bind pour moom yàlla bu bëggee big rasulullahi lay xool xoola sëriñ Tuuba nee na allahumma salli ala baabi ilaahi maa ngi julli ci ki toog ci buntu yàlla bi cun sunu maam aadama fa tabaarakallah ba mu lekkee garab ga te iblis seytaane bu bon boobu noonu moo ko dugal ba mu lekk garab ga nga xam ne yàlla dugaloon na ko àjjana jox ko teraanga yëpp ni ko wala taqraba haadihi sajara ba mu lekkee garab ga yàlla nga ko baal ci barke Seydina Muhammad sunu maam fa tabaarakallah ibrahima yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima yàlla nga ko baal ci barke Seydina Muhammad kon ñun bu ñu amee aajo dañuy dem directement ci Seydina Muhammad waaye ku mënta jaar nag ci Seydina Muhammad mooy buntu ba da ngay jaay fa tabaarakallaahu ci rawxaan jaar fa tabaarakallaahu ci xudaam mu dem ca malaakay plaidé moo tax ñaani xaw a yàgg nag xamoo woon Serigne Saliou. waaw Serigne Saliou dala daan ñaanal léegi mu am xam nga lu tax xaadim rasul la koy jox mu jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serigne Fallou borom mu am du am xam nga xanaa alfadlu moo jàpp. alatifu kun boo jàpp alfadul moo tax sëriñ Fallu waxoon ma am alquran laa am aw ma kenn Seydina Muhammad laa am te wallahi ku ñu dogal ci barke Seydina Muhammad ah nga xam ne dogal nañ la ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. waaw bu dee de 777 personnes li nga wax nii moom la libéré du hasard mystique la 770 dara du moom waaw moo jàpp onze kun yu ñu dolli juróom-ñaar sept cent ak kun kun innama amruhu is arada shay'an an la lahu kun soixante-dix la boo ko multiplier par dix du sept cent boo ci dollee yeneen soixante-dix du sept cent soixante-dix nga dolli ci sept xam nga sept mooy lan asamaan juróom-ñaar suuf juróom-ñaar te Macky Sall lim soxla kenn ci ci ci suuf gii lay ne lu ko tiim asamaan lan moo lan lan moo dox ci jamono ji juróom-ñaari bis mooy ñëw weer ñëw at ñëw moo tax 777 yooyu noonu mooy kaafi 111 yaa kaafi yu ñu dar bu juróom-ñaar 111 multiplié par 7 égale 777 Macky Sall soxla na fa tabaarakallaahu kaaraange. <laughs> ci kan 777 yooyu mucc la ci wër. xanaa ci tetal la loolu du hasard lu tax 776. lan moo tax 700 euh, lan moo tax bawul 700 lan moo tax bawul lan moo tax Macky Sall jël fukki kun doolu si juróom-ñaar fukki kun ak benn moo jàpp huwa huwa te huwa allahu lazi laa ilaha illa huwa malikul mulki wal quddus huwa rahmaanu huwa mooy 11 11 multiplié par 70 mooy 770 Macky Sall de am na sëriñ. yàlla yàlla dolli sutura ci barke Seydina Muhammad bu neexee yàlla de incha allahu rabbi nit du weddi boppam dama ni la yàlla du xamal waxkat am na loo xam ne bis moo ko waxee wallaahi yàlla jéppi ma xam naa ci loo xam ne bis bu ñu fayee caméra balaa nga ñibbi ma teg ko sa loxo waaye rus naa yàlla fa tabaarakallaahu nam teddee xanaa xamoo damay faral di wax naan sëriñ bu ñaan yàlla yàlla nangu sëriñ boobu daa war a fanaanee fecc waaw ponkal mu tol ni yàlla nga mën ko wax ko ni ko yàlla defal sàngam mu def ko lu ko gën a rëy tey bu Macky Sall bàyyee 770 fek man maa wax ba Macky Sall bàyyi 770 loolu du teraanga Macky la ci kanamu yàlla day dara yàlla gën a fort Macky Sall président Amérique yàlla gën a fort ndax Macky Sall nguur la yor te tabaaraka allazi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadirun quli allahumma malikal tuuti mulka man tasha yàlla jox nguur ku ko neex yàllaa jël nguur ci loxoom ku am nguur moo la jox nguur kon bu ma amee de wax dëgg yàlla man Serigne Djibril Niang yàlla mën ma xamal ci troisième mandat ma taxaw fi di ko wax waaye maa xeebadi loolu bi su ma ko defee xeebati internet ma diisoog yàlla yàlla xamal ma ma taxaw naan yàlla xamal na ma sàngam ah cun loolu ku xeebati rek a koy def waaye nag naa am foo xam ni comme que xam-xam la ñuy waxtaane xanaa xamoo yàlla dana xamal aybu alimul xaybi wa shahada yàlla fa tabaarakallaahu moom rek moo xam xaybu loolu leer na kenn du ci sikk sàkk waaye kum ko xamal nga xam ko waaye est ce que ka yàlla di xamal nag mooy fenkat ba mooy ma yàlla xamal ma tey ci guddi ma xëy wa kaa leen yàlla xamal na ma sëriñ day am personnalité sëriñ Babacar Sy wilaayam gépp personnalité la. Mm-hmm. yàlla yàlla doole sutura ci barke Cheikh Khadim. jërëjëf sëñ bi damay ñëw ci wàllu mm-hmm. gis ni combat bi passé mu di Balla Gaye ak euh, Boy mm-hmm. xam ne da doon bi ba mhm. ñu déglu ko waa mhm. mhm. tamit bokk waa xam nga gis nga Serigne sooy wax ak moom mun la insha allahu rabbi dana am loolu day am par force wàcc ko fa dem sa yoon sëriñ soo waxee moom mun la insha allahu rabbi dana am day am par force wàcc ko fa dem sa yoon wàcc fa sëriñ dem sa yoon. ndax day am waaw déedéet ndax du am day fen qul huwa allahu ahad allahu samat lam yalid walam yulad yàlla amul doom amul baay te ragal naa sa doom nga mën a def nga mën a digal mu def léegi léegi. Cheikh Ahmada Tidiane mii nee na man wóolu maa pexe yàlla yàlla moo lay may ci ngoon si xañ la ci guddi gi yàlla mooy xëy may la ñaata nit ñoo xëy à bonne santé balaa guddi ñu wéradi. xëy sa bopp dara du ci nekk ñëpp ne fa tabaarakalaaw nga yor dund ci guddi yàlla rey la sëriñ dëgg bu jëkkoo mbir mi xam ne li daam danaan insha allah rabbi yàlla bari na sutur sëriñ boo dégg mu naan yàlla baax na xam ne lam lay wax lay am des may may ñaanal nit mu naan sëriñ jibril ah sëriñ bi doo wax lu leer ma ne ko yàlla baax na am na sama benn taale boo xam ne ne man boo waxee yàlla baax na rek sama xel dal waaye yàlla day am par force yow lan nga ci yàlla ak lan nga ak ak ak yaay jamono ji fii ñu toll nii lam nangoon ca Yékini bu ko nanguwaatul du daan mbër. maanaam. Balla lim indi ci làmb gi lim doon songoo suba ba ngoon folklore la du mystique maa la ko wax tey waaw te Balla bis boobu mënu ci woon daan ndax Balla lu defar Boy Niang yàq na ko fépp fu Balla dugg Boy Niang xam na ko mais fu Balla Boy Niang dugg Balla xamu ko xool leen làmb ji mystique laa yox de. Balla day sangoo bañ ñaan waa Boy Niang du simmeeku Boy Niang daal di taxaw tuuti ñu ko gis Balla solaat leneen te làmb fa tabaarakallaahu il faut que nga xam lu wér mën ko gañe làmb dañ koy gañe sax ci dernière minute. damay gëstu ci wàllu làmb di gëstu ci wàllu xam-xam luy def luy def luy def nit mbër luy def nit roi des arènes ku ne ma toog ci ku ne ma ku ne ma jëflanteeg moom man loolu tax du ma ñaan ci làmb ma xam ci sirru boo xam ni kuñ ko defal. fa tabaarakallaa man du ma ko def du ma ñaan ci làmb waaye xam-xam laa waxtaanee muy cere joo xam ni loxo néew lañ koy mooñee. soog ko jox mbëri mu lekk. cere joo xam ni loxo néew lañ koy mooñee soog a jox mbër mi mu lekk. Balla dafa dem ba tollu foo xam ni seexlu na xeetu sacrifice yooyu noonu Yékini jàppul Balla gay Yékini day yàlla Yékini bu mënoon dara wala mu xam dara Balla du daan du Balla Balla dana ko daan. ni bu xamoon dara wala mën dara Balla dana daan Modou Lo ak ni mu ko daanee déedéet Balla lam nangoon daj ci mystique loola dajul keroog damaa toog ma ndeysaan maag sama soxna ma ne ko Balla lim indi ay butéel kese la ku xam ñaan xam dëgg ba ki tëddoon ki doon ci digg ci digg làmb ji wallaay ñoo ngi wax secret ki tëddoon ci digg làmb ji lam doon def folklore la cinéma dong la woon man maa la ko wax lii daan mbër dëgg du ñëw làmb Boy Niang am na ci xeetu ñaan loo xam ne jamono ji balaa mbër di ko tëralu leer naa ñu laa lay wax ku toll ni kuy bëreeg Balla Gaye mbër mu toll noonu ñëpp ñi daa am mooy am mystique nga ñëw toog ci diglaam bi takkoo dara waaye am nga boroom kurus waay am nga koo xam ne bu ne yàlla dama ni mu ni. sëñ bi noonu la ñuy jël parce que euh, dafa mel ni euh, xamal na Balla loo xam ne Balla Gaye xamul. xamal ko que lu dafay confirmer li kii di Lac de Guiers de numéro 2 waa man de du ma tudd tur waaye la moom ñaara am booy ñaar topp na ko ba xam fii lay dugg wala am na ku jege la wax Boy Niang Balla fii lay dugg ndax booy Niang moom Boy Niang moom xam na Balla fi muy yendoo xam na Balla fi muy fanaan te sëriñ naa la xamal lenn walaay ñaar du caaxaan mbur làmb pour nga dem ca làmb ba jë dëgg kaay wax la mbër bu bëggee dégg daal sa mbokk lay àndal mbër boo gis su cumba kaayam ku mbokkal ndey baay xamal ni moom sorewul ci làmb boo gisul ci cumbukaayam ku mbokkal ndey ak baay xamul ni sorewul ci làmb boo gisul cumbukaayam mbokk deretam xamul ni sorewul làmb du def dara ci làmb beneen bi ci des kii soppi kii kii sotti mbër gàllaaj du foo ko bëgg tegee bët teg ko bët xamoon ngeen cerno bi daan ànd ak Balla Gaye kan moo mos a dox ci mbedd dajeeg moom waaleykum salaam wa rahmatullah déedéet xam nga ku kagule bi euh, déguisement la rek wala yàlla may na ko ndax wax dëgg yàlla xolal euh, xam-xam boo koy waxal dëgg rek te xamul ma ko dara ku kagu léegi ñaara am déguisement la rek wala mu nekk borom xam-xam buy laaxatu bari na bañ ni ñu xam ko rek mu sol masque pour ñoo def lu muy def waaye ku kagule bi bi baala di daan yëkki ni anamu dama leen wax dara ci wàllu mystique. indi ci làmb mu ko daan may ndam indeetu ko bala fàttiwu leen avant combat am na lu ko ni daan sexal bouche à bouche anamu avant combat lu dul bëre am na nijaayam joo xam ni Casamance la dëkkoon te am yaram nga xam ne mook Balla ñu daan mujj ci géew gi kooku anamu ñoo yor bagage